spécial safar ñun ak yéen ci bii promédia équipe bu promédia fas yéene ànd ak yéen première bés bi njëkk ci weeru safar ba bu keroogee di safar fële ci Touba. yow mi nga xamante ni que da nga bëgg a màggal ci sa biir kër wala nga bëgg a màggal ca dëkk bee di Touba wala nga bokk ci ñuy organiser bi ci safar yi ci Sénégal ak li ko wër équipe bi Promedia dina fas yéene ànd ak yéen jox leen équipe bu doy moo xam yow mi bëgg a wane sa màggal say bernde ak xew-xew yi nga xamante ne moom la ñu ci bis màggal ci njëkk lu yomb njëkk lu ñu jox la équipe bu ko mat caméraman reporter defar la si vidéo ba mu jàkk dugalal la ko ci suñu biir chaîne bi di Bi Pro Média kon màggul 2022 ak Bi Pro Média ñun ak yéen incha allah. kaay yi. li ci yéen kaay ak El Hadj Assane Gueye démb altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut nekkoon bis bi njëkk ci weeru safar kaddu ak digle yu am solo jib tukkee ci ku tedd ki ca Touba Mbàkke Serigne Mountakha Bachir Mbàkke Vox Populi ne Serigne ba Bachir leral na doxalin ak toogaayu war ca tubaa waa Touba ak it ñi màggal si waa tubaa sëñ bi sàkku ci ñoom ñu doyloo képp Serigne Touba Mbàkke Xaadimu Rasuul ca nit doon ay ndawam ndaw yu mat ndaw ci dëkk bi gan ya muy sàkku ci ñoom ñu ñëw fa képp ngir Serigne Touba keneen ku fa leneen lu ci mel ni jëfi àddinay dong ku tedd ne perte nga bi le jour ne introspection ñu xoolaat sunu biir ak sunu toogaay dugg sunu ruq mën a kan ginnaaw kàddu yu tedd yu xalif général ku lu murit dañuy dem ci les échos teq fëslëf kàddu yu soxna joox Fall Sow soxna su njëkk a doon procureur Sénégal mu naan Sénégal moom daanaka ku ne am nga xalaat ak gis-gis ci ni nit ki war a doxee ak toogee ci pénc mi waaye bu jëf jotee ñu doxalee neneen ci gàttal wax jee fi ëpp jëf ji soxna si ne bu sañoon nag gis Sénégal gu gën a am ak yoonal ak yemale Sénégal gu gën a naat te nag mu ne dogal yu ci mel ni ay maye ceeb ak yeneen lu mata moytu la ndax saafara yi sax soxna Dior Fall Sow ne ñi xamoon Sénégal 1960 ak 70 nag rëccu nañu Sénégal googe Sénégal gu nekkoon taaru sous région gi naataange waaw waaye lekk moo ci jiitu ci xibaar bii ci observateur tey jii de du neex sekke nag njaween yu Sénégal ndax nag dañoo gis ne wàllu ceeb bi moom di stock bi fi ne bareetul du wees ñaar ba ñetti weer wàllu politique suuf aseq waxtaan ak maire bu maire moo Sacré-Cœur Alioune Tall lu jëm ci audience ak président Macky Sall coow li mu jur muy leeral ne ci waxtaan wi président waxuñ fa sax mbiri politique ca nag mu Dia ci boppam doon na fexey jamono dajeek moom président kon coow li matu ko président mu ne rafetlu na esprit républicain bu mu am moom président de la république nag Serigne Habib Sy Dabakh la mu ko xelal mooy mu bañ a xëccu bokk ci troisième mandat ca mu moytu mu ne ñi ko wër di entourage am muy kàddu yi sëñ bi la tribune xëy jàllale muy cib émission bu mu séqoon ak Walfadjri su bokkee mu ne ngir troisième mandat lu mësul xew dina fi xew Sénégal moom jiitu réew mi nag sa Sall jàpp na ci xiini mi ni la ndax ci fukk ak juróom-ñetti weer yu des ci njeextalu mandaam mu nga ca diggante dund gu seerte askan wi akuk majorité gudul majorité ci assemblée ndax wute benn toogu kese assemblée nationale googee nag fa la ñaareelu xare benn bokk yaakaar ne ginnaaw xare bu njëkk ba woon ci wotey député yi l'info moo ni waxee xare bi ngir kay toog ca bopp assemblée dib toogu bu nguur gi ak opposition bi yépp yootu yéene kaay bi ne tànneef li nag du yomb ci président Sall ak lobby jigéen yi taxaw ngir palu ko soxna Aminata Touré ak ca wet ga expérience bu Pape Diop ak ñu bari àndul ak moom rek mun na jur safaan ci rangi benn bokk yaakaar ci assemblée nationale Vox Populi exécutif permanent bu ci seen i député moon ngoom ak i gaayam sàkku taxaw samp ndëndëm ndax jàpp ne boobee poste kenn ci seen biir gënu ko ko yellool maxitaw ñaan moom ci direct news ne arène politique bi ci boppam Sénégal moo tilim ci ànd aku posen bu doon ab jaww ndax mu ne da am ñu jël léegi fen fen ak kàcc def ko nga ngànnaay ñu des ak direct news muy xëy tey ji ak nelaw génnuk àddina journaliste bu xereñ ràññi ko woon lool Lamine Touré RTS ñàkkoo démb ginnaaw ay fan ci ginnaaw Pedro Ndiaye ak Abdourahmane Koyta doonoon nit ay kàngam ci métier bi ci yéene kaay bi seedey Mbaye Diouf ci Lamine Touré mi mu nekkaloon lool ci RTS Lamine Touré mu ne ak Pedro Ndiaye duñu woon saf garab ak ëkkam maanaam ay seex moo waral sax mu ne ci saraxu ñetti fan yu Pedro Ndiaye soxna si Lamine la woon soppoon lool di dugg ci ruq-ruqaan ak gox yu xëcc ci Sénégal te foo ko gisaan ba njëngay njëkk a gis ñëpp nag ànd maase seede yéwén gi ci xam-xam bi ñi gàcceel seen métier mooy mooy ñenn ci dawalkati ambulance yi nga xamante ni ay pombiteer yu yàqab saaku lañu ku ci mel ni ki ko échos xëye tey du malade de waaye téeméer ak fanweeri juróomi kilo yàmbaa la yeboon ci ambulance ba may wax mu bëgg nag guerre gendarme ya naan da di proposé xaalis ñu ne ko nip jàpp ca mandat douane Kalifourou ca diwaanu Kolda au ndox mi neex te sell Gambrendi et la bio chetttt mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette

dara du la ci ump vous voulez des informations en temps réel cliquez sur www.senegal7.com Sénégal 7 spécial safar ñun ak ci bii promédia équipe bu promédia fas yéene ànd ak yéen première bis bi njëkk ci weeru safar babu bu keroog gee 18 safar fële ca Touba yow mi nga xamante ni que da nga bëgg a màggal ci sa biir kër wala nga bëgg a màggal ca dëkk be di Touba wala nga bokk ci ñuy organiser bi ci safar yi ci Sénégal ak li ko wër équipe bi jaa dina fas yéene ànd ak yéen jox leen équipe bu doy moo xam yow mi bëgg a wane sa màggal say bernde ak xew-xew yi nga xamante ne moom la ñu dund ci bis màggal ci njëkk lu yomb njëkk lu xewle ñu jox la équipe bu ko mat caméraman reporter defar la si vidéo ba mu jàkk dugalal la ko ci suñu biir chaîne bi di Bprod Media kon màggul 2022 ak Bprod Media ñun ak yéen incha allah